panel ànd taxaw Bawol Cheikh Fall la responsable politique benn bokk yaakaar Touba ah xam nga président moom li nga wax rek nit la koo xam ne li xew yëpp teg na ci bëtam ay àndandoon tamit teg na ci ay ay bët waaye nit bu dee julli nga topp ci ginnaawam bu juumee sax islaam daf la wax ne ne ko subhanallah rawatina mbirum àdduna mi nga xam ne du dara te kenn ku nekk xam na ne président Macky Sall ci ay njuumte la dëkk ndax xam nga euh, nit boobul conseil yu baax rek ci njuumte la dëkk ak koo mën a doon mu ci diine muy ci àdduna le président nag erreur bi dafa yàgg te pourtant nii ñu ko alerté nii noonu lañ yàgg alerte wax naa leen ba tey ne leen Ousmane Sonko mii kenn du xex ak mom ci communication kenn du xex ak mom ci diabolisation kenn du xex ak mom ci jaay doole dafa ñew indi istilam xol fi metti ci sénégalais yi mu laal ko mais dama japp ni lolu ak fatli la war ndon ci président bu président Ousmane Sonko ñewé ni président Macky Sall mbay mi doxul da nga favoriser da nga favoriser la mais attention dafa war a pour nga taxaw ci mbay mi bu taxawee ni ne inondation yi nangam nangam dëkk sàngam mais nga wax ci inondation yi bu dikkee ni wax la ci faj mii bu mu dikk wax la ci nga indi ay solution bu ko defee moom du am bunt mais nit ku nga xam ni dafa ñëw di politique di la wax ay renégociation des projet di la wax loo xam ne baaxul ci réew mi nga ne kii moom sama noon la mais waxam naa ko nee naa ko gis nga garab gi war a nekk garabu penc ëllëg law bi di ko gis ba di ko gor Ousmane Sonko kenn xamul fan la jaar président Macky Sall cuune gi nga xam ne nag waa Benno Bokk Yaakaar cuune nañ ko rawatina waa présidence cuune googu moo ñu topp mais nag comme le président Macky Sall il préfère mu jële les médiocres teg ko ci wetam ak nga xam ne ñoo koy ñoo koy ñoo koy tam-tamal li nga di ko xaral di ko xalamal te na jël loolu gis nga sénégalais li ñu indil problème dëgg dëgg parce que même Aminata Touré mii nga xam ne dans le parti waxna ko mom la gëna a jige ci parti bi kéro bu mu joggé dal ci Ousmane Sonko dama gën def ben sorti médiatique du ko def nga njuumte lu rëy président Ousmane Sonko du ko xam ne koy songu ci lo xamné ci banex rek nga koy tek parce que limi tek nak franchement lu concret la lo xamné yaakar mën na ci juddu ki daf ni man suma falu la nangam ak nangam ak nangam ak nangam Sénégalais yi ci mom yow mi falu nag yor mbir mi yor milliards sénégalais et pourtant mom mom waxna na la li muy def bu faloo te wourna la wouru yalla Ousmane Sonko li muy wax lu baax ci senegal la wóor la wouru yalla ni plan yi bi tek kenn ku nek xamna ni ben intérêt président Ousmane Sonko nekku ci yow nga nek nit rew mi yor milliards do doo projet bi def ko et puis li gën a moy président dafa am temps pour def ko parce que Ousmane Sonko bu faté ni 2017 2016 2017 2017 ba légui mi fi presque 5 ans mu nek di la wax lim bëgg bu faloo da nga xam ne lii nga xam ne moom la bëgg lu baax ci réew mi na nga yor leen mooy doo ko def su ma ñëwee def ko ak maa fi nekk ban ko def doo ko def parce que solution yi mu indi ci emploi indi ko ci agriculture ñaar yooyu rek mën naa développer Sénégal te président Macky Sall xam na loolu man tey dama bëggam ni man lëg loo ko soxla xam ne lëg gudd na mën naa daw. lu waaye dof dof dof dof dof xam président Ousmane Sonko mi amna xam-xam amnay nay xalaat ci réew mi te ko djubla nit nak bu amay xam-xam am ay xalaat am ay programme am vision ba pare djub mais tay ñom ministre yi nekk ci réew mi fii laa wax A ba Z ku ci gëna djub président Ousmane Sonko amu fi amu fi donc nañ rafetal ànd bi te xam ni réew mi ñu ñoo ko bokk jaay doole aussi baaxul loolu moom du ma ci mës ànd ak président ndax nag kenn ku nekk xam na ni depuis indépendance sa léegi lii ñu teg ci kaw Ousmane ko kenn mësu ko teg ab politicien kenn kenn ku ko mës teg ci politicien amul ci wax ju ñaaw ci ay jëf yu ñaaw ci ay tuuma dugg ci ay waajuram dugg ci ay mbokkam te kenn ku ci nekk li ngay wax wallahi lazim bu la tegalee kaamil mu sukk teg sa loxo ne di dëgg la ñoom ñëpp nag benn bokk yaakaar bu leen tegan tey ñoom ñëpp A ba Z teg président Ousmane Sonko julli jot ñu ne kàbbar leen wallahi lazim Ousmane Sonko may jiite ndax man xam naa leen xam naa Ousmane Sonko caxaan baaxul yu mel noonu nag nit ki doo ko jël rek single ko adversité ak nekk ay ennemi bokkut nañu politique kenn ku nekk indi sa programme indi sa vision sénégalais yi tam mais man damay teg sama programme damay wër réew mi damay dem fu ma neex samay ministre dañuy dem fu leen neex sama responsable dañuy dem fu leen neex sama militaire dañuy communiquer sama responsable dañuy communiquer tey ñu ni ku bokk Pastef do communiquer do do doo génn mais fu ñu ko teg man dama jàpp ni charme politique.

bundi njëkkoon Sénégal ak Ghana la doon lam-lamee Ghana raw na ko di dem Sénégal recul na bu baakha baax ci walum démocratie benn bi nga xamni ne ci nek aussi les oppositions ont intérêt à faire attention bu baax parce que nak je commence à voir la trahison te yu mata baye xel la yooyu amu solo de toutes les façons li solo te man dinaa ci wax moy le président Macky Sall a intérêt à faire attention ci fan yu bëree bëree bëree bëri ci xam na jaay doole baaxul tayit képp ku xamul Abdou Latif Coulibaly képp koo xam ni xamoon nga tey Youssou Ndour képp ku nga xam ni tey xamoon nga ñi nga xam ne ñoo nekkan ci réew mi en commençant par tonkara ak kii kële kële mais tey ana Nous sommes les avocats du peuple et alors